biiru Ali fii la ñuy tàmbalee lépp li nga xam ne jëm na ci wàllug at bi soo jógee fi nga xam ne moo di Médine fii jàpp nañu ne pèlerin yi fii lañuy ñuy waajalee lii di juróomeelu pilier bu lislaam mel ni nag fii itam lañuy ñuy defee lépp loo xam ne daal nekk na tànn ci ban xeetu pèlerinage lañu fas yéene amal. fa ñu tàmbalee armal te mooy bu ñu duggee ñetti yi nga xam ne mooy façon aj yi am te ki aj ifraat wala xiraan wala tamato yéene nañu ko foofu julli fa ñaari raaka si jàkka ji yéene ku ne aj bi nga bëgg a def ta tàmbale talbiya te wax labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika lak labbayk inna alhamda wa ni'mata lak wal mulku la sharika lak maa ngi nuyu sama waa kër lan nga jotoon ñaan sa waa kër ak Sénégal ah gudd fan ak wér ak sutura ak teranga at nag ñeent téeméeri kilomètre ak juróom fukk moo teqale Médine ak Makka daanaka voyage la boo xam ne daanaka ay zikr kese mooy am ci yoon wi ba bu yegg fi nga xam ni moo di Makka. Makka dëkk bii nga xam ne daanaka saguk lislaam la dëkk la boo xam ne mën nañu wax ne ci diineeg lislaam moom moo dalal béréb bi nga xam ne moom lañ ci gën a ràññee gën ko ci fonk ay junni junni doomi aadama ay jullit ñoo fi dajee at bu jot bu ñu yegsee fii nag li ñuy njëkk def mooy tawaf yegse nañu màkka si dem nañu wëri kaaba ga dem nañ makaam ibrahima julli nañ fa ñaari rakka naan nañ sam sam daw nañ safa marwa bi xam ne yàlla moo ne inna safa wal marwata min sha'airillahi macha allah laal nan laal nan eh, rukk yaminit raal nan kaaba ga dugg nañ ajaru ak aswat lu yombut waaw lu yombut jamono ji macha allah daal ñun daal sant nañ yàlla bu baax. sant yàlla nag ci wuy ci bi ñu ko wuy si di ñaan yàlla ku masul ñëw yàlla la fi yàlla indi waaye ku mas ñëw yaa te bëgg ñëw yàlla nga fi dellu si. ndar it ndar gëm dëkk yàlla bu leen kenn appelé ci jàmm ji may wax yàlla may leen jën wu bare. te barkel maire Saint-Louis di Mansour Faye maa ngi yal na yàlla dolli sutura di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm Sénégal gi ñu joge di leen ñaanal jàmm muy suñu président bu bees bi Diomaye di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal salaam di ñaan yal na Sénégal gépp am jàmm Racine Talla monsieur le maire waqi naa nimsaat moo ñu jox ay billets ndaw Alaaji ndaw Adja waaye fi mu nekk ni kontaan nañ suñu xel sedd na def nañ tawaaf bu am maana def nañ safayi marwa ñu ngi xaar mun na ñu ngi xaar musdalifa ñu ngi xaar taxawaay arfa sama doom ji jigéen nag moom ma fi indi moo ma fi pour ma dem aj si maa ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal mboolem junnit nag pèlerinage bu yi nga xam ne moo di pèlerinage à la nekk na jamonoy daje boo xam ne réew yi islamique bi yëpp ñooy daje ci Arabie Saoudite ay réew yu bare bare ñoo fiy daje ay xeet yu bare bare it ñoo fiy dajee daanaka daañ fi def ñetti semaine ñenn ñi sax ñeenti semaine